war a remplir li nga xamante ne mooy contrat am digganteem ak ki nga xamante ne mooy Siteu la Tarkinda Papa Ndaw Sow am na am na ay débat déb yu muy def moom Papa Sow euh, gis ngeen ko noonu mu ngi mu ngi mu ngi def benn col bu weex ci ci ci bopp bi euh, ci baat bi mu sol benn casquette bu bala moom Papa Sow Balla Diouf a ngi noonu mu ngi naan xàll leen gaa yaa ngi xàll Papa Sow a ngi noonu Papa Sow ñu noonu ndeysaan ma ngay wis xorom gaa yi wis ndox ndeysaan gis nga. def leen ba ñu sol leen blouson yi ba ñu compter loolu def leen dànk rek dañuy organiser teel nit ñi ba ñu compter ñu sol blouson ba pare jàppale leen ñu ci organisation bi. jërëjëf sol blouson yi ba pare nañ sol yi nañ sol blouson yi dix personnes mooy sol papa gérer leen loolu dix personnes mooy sol blouson. président nee na ko dix personnes ñooy sol blouson bi papa gérer loolu waaye papa Sow gis ngeen ndaysaan le piment de parcelle mu ngi noonu mu wane ni bis bi am na fu mu ko toll ay <laughs> Papa Sow ndaysaan stade yi nga xamante ne stade ndaanaan la yëpp xale bi bëri na fa stade Jom Iba Mar Diop bii Papa bëri na fi ba tàyyi Papa na stade Léopold Sédar Senghor Papa Sow bëri na stade Demba Diop Papa Sow fas bëri arène nationale bokk na ci mbër yi nga xamante bu ñuy wax yar ak teggin Papa Sow da koy indi ci làmb ndeysaan nit la koo xamante ne nit ku rafet xol la nit la koo xamante ne sportif la moom Papa Sow gis ngeen ko mu ngi noonu di ñëw waaye papa yaa ngi laale xale boo xamante ni làmb jos mën naa ne daanaka jos moo leen boole ci làmb ñu dégg. Papa Sow ndeysaan. ndeysaan waa Siteu ngi noonu di ñëw mais faw ñu def rôle bi mu gaaw ndax euh, bëgguñu ñu daje ci biir ndeysaan papa ngi noonu di dugg na nga yus gis ngeen papa benn gaa rangooñ na benn galañ waaye ñu ngi ci takk benn morceau bu weex morceau bi fu nekk mu ngi am ay fas-fas Adama papa Sow ngi noonu <laughs> ay làmb dekk waaye ndeysaan saa yoo boole ñaari mbëru gox wala mbëru penc mbaa mbëru réew da ngay gis saa ne làmb ji day wane boppam moment bi ngay wax balaak <laughs> ndeysaan moment bi ñuy wax lii Papa Sow ngi noonu di dugg si moment bi Papa Sow di dugg si télé Siteu bi ñëw la tarkindaa ndeysaan mu ngi noonu dégg Balla du yow yaa ñuy wax. li ñu régulariser la ñuy def. defal naa yow yaay def nag yow yow yaay def nag. personne dinañ ko sol. non defal nag Balla dama ni li ñu régulariser lañ lay wax. demal Cheikh Ndiaye ni fii demal nga laaj ko li ñu signé. non yow yaay def nag. non du yow yaa may ne defal nag. non defal nag. non defal nag rek Balla. lii rek ci làmb la bokk. ñii ñooy dugg ñii ñooy génn. xaaral eh non ba pare. man maay choisir ba pare. Ballaay tànn ñuy dugg. Ndaysaan. Goro Sock na. Ndaysaan Balaak dugg na keneen dugg na. Ndaysaan. Ndaysaan mbër yaa ngi noonu di dugg ñu ànd ak Papa Sow. Papa Sow nee leen dem leen. waaw baax bu dem baax. Papa naan leen dem leen. Ndeysaan. Ndeysaan. Ndeysaan. dañuy organisé dañuy organisé. loolu jafewul dañu signé ko ñu fay ñu fay kat kat Pape Gora Pape Gora xoolal xoolal yëpp nga jëlee leen bi rek ñu sa dugg papa da joxe conseil papa da kon kii na xaar Papa Sow dugg na Papa Sow dugg na noonu Adama topp ko Adama dugg Adama Adama jaaral ni jaaral ni jaaral ni Adama gis nga béjjën bi mu yor ci loxo bi Adama gis nga la mu ràngoo am na benn galañ bu mu ci aw téere ndeysaan loolu yëpp bis bi moo ko laaj waaye en tout cas lu mën a xew mooy Papa fonk na bis bi jox na bis bi cër bi mu laaj parce que xale bi muy bëreel moo ni mel surtout tolul ni ñoom waaye ku muy bëreel nga séddu ko cër ndax lépp lu muy def am na ci fulla am na ci fayda kii c'est le piment de parcelle barki démb bi mu jugee écurie Fass delluwaat ci écurie Jàmbaar Wrestling Academy gis nga ndaanaan yi fa nekk bëre nañ keroog daan Franc ñu noonu seq ko barki démb la daan gis nga daam seen mi seq ko barki démb la daan góor a soog mee jotu cee am combat balaak ma la ci ginnaaw daa bëre match nul kon muy wan ni rek saa su ne xale yi ñu ngi koy buux di ko gën a dooleel moom Papa gis ngeen tànk yi da koo teg jël benn guro bu xonq teg ko ci diggante xarante tànk yi loolu nag tegtal la siège bi mu toog dañ koo laxasee benn percal bu weex percal boobu da cee dagg laxas ko ci baat bi moom Papa Sow waaye en tout cas gis ngeen ko mu ngi noonu Balla Diouf a ngi noonu waa jàmbaar Wrestling Academy ñu ngi nii kon ci kanam tuuti dinañ xool Siteu lan la fas yéenee diggante ak Sa Thiès wala boog digganteem ak Papa Sow wax sànni kee wax dolloo ñu xool keroog événement bi nan lañ ciy jëmee. ñaari mbër yi lan lañ fa yéene wax waaye dañuy yéegaat ci kaw